ay soppeem yi tamit xam naa ni ku leen xam mbaa nga jaxasoog ñoom it ca lool rek nga leen di xal sa te fekk ndax moo toll noonu. dikk na ci waxtaan yu soxlawul may dellusi ci wet googu waaye message bi nga xam ni moom lañu ñu bëggoon a jot li mooy ginnaaw bi ñu sante yàlla ci tey ñii ñu fekk ñu teew fi ñu gis ni jigéen ñi ñoo ci gën a am taxawaay loolu dafa dalal suñu xel daf ñu rassuré yi tamit ndax bu ñu waroon àdduna tey mbooleem ñépp d'accord nañ ci dëgg la naam ñoo ngi naan famille la waaye ki téye ba société mën a taxaw jigéen la dafa am benn boroom xam-xam dafa wax ni ñu koy wax Michelet dafa wax ni toute femme est une école et c'est d'elle que nous prenions vraiment toutes nos croyances nee na jigéen ju nekk daara la waaye pas-pas yi ñuy am ñun góor ñi ak ngëm-ngëm yi ñuy am sax ñoo ngi koy nampe ci jigéen ñi ba tax na suñu amee jotaay bu mel nii fekk fi jigéen ñi taxaw fi taxawaay bu mel nii loolu ñun daf ñuy rassurer ci combat bi ñuy mëne du doon combat boo xam ni combat perdu d'avance la déedéet ndax benn jigéen rek mën naa soppi àdduna benn jigéen waxuma laa nag mbooloo mu toll nii xajuñu ci dara li ko waral mooy lu sotti yàlla la wax mu yegg sax yàlla la neex kàddu gi su daanoo yàlla la neex waaye am na ku téye mikoro ba tàyyi te yëggalewoo ko dañ koy fabe fam toog jóg dem fi barab ak yi loolu kon pour nga entreprendre dara mu sotti loolu yàlla la soog ba tax na lay wi suñu boroom soxla lay wi mu soxla pour dimbali ñoñam jigéen ju taxaw pas-pas ba wér borom bi dana ko dimbali ba tax na lii daf ñu rassure te ñu xamit ni bu ñu daal di tëdd réew mi am na dëgg-dëgg ay défi yu fi nekk ay défi yu rey yoo xam ne interpellé nañu bari ki démb le 31 décembre ndangaan sàmb maa ngi jokkoo ak ñoom léegi am fa tubaab yu fa ñëw nee nañ installé nañ fa ay hôtel jën nañ fa kër jël sunu ay jarbaat sunu ay doom daanaka futti leen bañ def yaram yaramu neen fanaane noo di leen défilé loo ndax lan ay miettes ay vingt mille francs trente mille cinquante mille est-ce que dana ci yegg sax est-ce que dana ci yegg sax waaye ñoo ngi leen di saytu loolu ñoo nga koy topp yi tamit war ko lijjanti ndax pénc mi ñun ñoo ko moom penc mi ñun ñoo ko moom te dañu ko war a taxawu ba li ñu fi fekk ci ak mbaax buñ ko yokkul it ñu sauvegarder ko ndax bu ñu fàtte mukk ni ki yàlla yónni ci ñépp muy alayhi salaatu wasalaam li mu wax mooy dañu ko yabal dañu ko yónni ngir mu mottali xeeti jikko yu rafet yi te bi mu yeggalee liggéeyam ba noppit borom bi nga xam ni mooy sanctionné toute œuvre yàlla moo koy sanctionné positivement wala négativement yàlla mi ngi ko sanctionné ci jikko kese sanctionné wu ko ci ay station daraja ak i maqaama sanctionné wu ko ci xam-xam sanctionné wu ko ci mën a julli wala mën a woor waaye ci jikko la ko sanctionné kon ndeke mbir mi jikko ci la bokk wa innaka la ala xuluqin azim jikko ci la bokk ba tax na yàlla na ci ñu taxawu jikko yi ci penc mi te loolu mënta sotti te jigéen ñi taxawuñ ci mënul nekk mënul nekk ba tax na ñun bërki démb tribunal la ñu yendu man ak euh, professeur Cheikh Omar Diagne ci même lancé boobu yi tamit agresseurs yi ñoo ngi agressé ba tey ndax yàq dafa gën a yomb yàq dafa gën a yomb rawatina contexte bu particulier bi ñu nekk muy au moins ñetti yëf fees na fi muy contexte de grands ensembles nit ñi nga xam ni bokkuñu ngëm-ngëm sax ñoo ngi doole ñi bokkul ngëm-ngëm sax ñoo ngi doolalent da nga gis sioniste ànd ak koo xam ne gëmul loolu ànd ak communiste ñu boole xeex lis ak jullit ñi te ñun inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sax saffan ka annahum bunyaanun marsus yàlla sopp na ñi nga xam ni ñoo ngi ci ab toolam di bay ak di ca def ay effort ak di ca xeex ba noppi jàppaloo mi ay mool yu ñu taqale gis nga image bi borom bi joxe tey kër yi kenn dootul wax briques yi dañ naan kër gi la ñuy wax wala tabax bi parce que kenn ku ci nekk nangu ngaa fonk sa morom def sacrifice taxawal dara loolu kon ci ñun la gën a yelle te yaakaar naa ni jigéen ñi ñooñu ci gën a mën a jàppale kon ñu nekk ci ère des grands ensembles nekk ci ère boo xam nit communication mi ngi demee noonu loo jàmbaare jàmbaare loo góor góorgóorlu góorgóorlu ngaa dem taxawal sa daara jël sa njaboot jox sa biir jël jàngalekat yi gën mag sax ñu nekk ca biir dongo daara yi boo fatee fatoo tëdd sa néeg ñu dem Sydney dem New York dem New Delhi dem Paris dem Pékin dellusiwaat ñëw te duñ génn kër gi parce que ñun contexte bu particulier boobu ci lañ nekk moo tax may wax ni ñun jullit ñi war nañ relever aussi suñu niveau xam-xam parce que ni maam ya doon doxalee ñun suñ ko doxalee à coup sûr danañ échouer à coup sûr nañu doxale woon ñun suñ ko doxalee dana échouer parce que bokkuñu ay défis yu ñu interpellé tey sa kër ngay toog tëj ko sa njaboot la ko yàq mi ngi ci biir kër gi te loolu amuloon il faudrait que kon élément boobu ñu jël ko en compte te jigéen ñi ñooñu ci gën a mën a dimbali beneen bi ci des yi tamit. ci lay daane leen ndax li ñu interpellé dafa bari mooy nañuy veiller ci njaboot gi ci biir kër gi surtout parce que ñiy génn ci mbedd mi ñëpp kenn ku ci nekk ci kër nga bàyyi ko ku ñu gis ci mbedd mi ak comportement ak lu mu fa mën a ëndaale nañu xam ni tëbewul ci asamaan si jékki-jékkiwul aussi génn ci suuf si ci kër yi lañ bàyyi ko te biir kër yi. dafa am kilifa goo xam ni daf ma nettali lu yéeme daf ma wax ni ma en 92 wala 91 bi mu yëgee ni dafa am film bu ñu fi waroon indi muy dynastie nee na dafa jël dàllam dem ci alajo Abdou Aziz baax mu baax ma nga xam ni ñoo ngi koy jooy ba tey dem ci sëñ Saaliwu dem ci kilifa yi nekkoon ci réew mi yépp nee na fexe ñaan audience giseek président de la république Abdou Diouf ni ko gis naa film boo xam ni bis bu ñu ko tegee Sénégal njaboot gépp dana yàqu. nee na mu jaral ma ma jël risque bu nekk jaral ma ma dox jéego yu ne waaye yàlla dogal film bi jàll comme lettre à la poste nee na ñu seetaan ko ma am lu ma naqari trop nee na 97 ma toogaat sama même salon. nee na le même film ñu dawalaat ko ma seetaan ko ba mu jeex te gisuma lu ma ci naqari kilifa gu mag ci réew mi moo ma nettali lii nee na ma ci laa yëge ni am na lu ma ñàkk ci diggante bi maa xamul lan la voilà en li ñuy wax gert tranquille arme silencieuse ñun ci contexte boobu lañ nekk. contexte bi ñu nekk nekkatul contexte mokkal alxuraan kese ak tari ay aaya déedéet gis nga toolub xare bi fi ne sax nit ñi xamuñu ko toolu xare bi. wa lakum fi l ard mustaqarun wa mataahun ila xiinin kon c'est un combat perpétuel défi yi interpellé woon nag kilifa yu mag yi ñun yeneen défi moo ñu interpellé te moo gën a sew loolu nag ñoo ngi ci yaakaar soxna yii ci xam ni ñoom bu fekkente ni formation bi mate na ko ñoom seen taxawaay seen ngor ak seen jom mate na ko te waxtu ci nekk jigéen ñi ñooñu man ba tax na kon nanu yëkkati niveau bi xam-xam bi ñu wuti ko ak fu ñu ko mën a wutee ji te taxaw temm ci defendre lislaam parce que amuñ lu lislaam li tax ñu indi ñu fii bàyyi ñu fi ñu nag soxna Zaydam ñoo ñëwandoo woon mais moom jiitu ji na incha allahu rek léegi ñu fekki ko kon bokkoon nañu dikk ñun desandi nañ fi li tax ñu indi ñu fi te bàyyi ñu fi nañ ko xam te consacré wu ci mooy taxawu lislaam défendre l'islam toppatoo l'islam suñu demee ba agression bi tey yegg ci bu ñuy inauguré fi mu nekk nii jàkka dañuy teg ak sabar ak di ndaw rabbin ma ni nañu séentu ci mais c'est extrêmement grave nañu séentu nii léegi danañ dem a dem a dem ba maanaam Pam coppet wala keneen la ñuy teg ci men bari yi fi mu nekk nii ñu kenn actuellement y a des mosquées actuellement que ce soit en France en Allemagne aux États-Unis des mosquées mixtes góor ak jigéen ñooy bokk sàppe y a des imams actuellement yoo xam ni ay jigéen lañu y a des imams góor jigéen homosexuels mën naa ci wax ñu baree baree baree bare actuellement te mi ngi ci suñu réew mi ci la jëm si actuellement moo tax taxawaay bi am na lu mu laaj nañu ko bàyyi xel te xam ni sàmm valeurs yi défendre valeurs yi moo gën ay milliards moo gën àdduna li ci biiram lii mooy message bi nga xam ni collectif bi bëggoon nañ ko joxe ñoo ngi dellu di leen sant di leen ndokkeel di leen jaajëfal di leen séentu nag taxawaay bi ndax jàpp nañ ni fu góor taxaw benn taxawaay wala fukki góor benn jigéen mën na koo wecci moo ñu loolu yàllaa ko def kon ñoo ngi leen di séntu ci taxawaay bi ak sunu wet ngir ñu yëkkati raayab lislaam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu